La première précision, c'est qu'il n'y a pas de bradage, il n'y a pas de litige. La deuxième précision, c'est qu'il n'y a aucune population de Yassane qui fait partie de ces gens. Aucune. Vous pouvez mener vos des recherches. C'est des gens qui ne sont pas de cette localité-là, qui ne sont pas de ce quartier-là. Quelque part, même qui étaient dans le conseil municipal et qui avaient validé le projet. Et ce projet-là, c'est un projet de construction d'un nouveau quartier. qui s'appelle Écoquartier, un quartier qui répond aux normes de développement durable, à la verdure, à l'environnement, un cadre de vie attrayant qui pourrait comporter une maison de la femme. non braves dames-là, elles n'ont pas de siège. Si elles doivent se réunir, hors de cette salle-là, il n'y a qu'à Pékin une seule maison de la femme. C'est ici, à Pékin-Est. Nous sommes une commune. Notre commune mérite d'avoir une maison de la femme. et j'ai décidé de construire une maison de la femme dans ce site d'un étage et demi, R plus 2, afin que les femmes puissent avoir leur bureau, leur siège, leur salle de réunion, accueillir, accueillir leurs à ce niveau-là, en toute autonomie. Ensuite, les personnes vivant avec un handicap de Pikine Nord ont 150 mètres carrés dans cette zone. Et ça, c'est les démarches que nous avons faites au niveau de l'État afin d'acquérir à travers la CCOD, la commission de contrôle des opérations domaniales, qui a attribué ces 4 hectares à la commune de Pique Nord, mais sous forme d'équipements structurants et d'habitation. Qui dit quartier Je pose une seule question aux gens qui nous écoutent, censés avoir un esprit serein. Est-ce que vous avez vu dans le monde un quartier sans habitation ci wolof mus ngeen gis quartier bu amul de dëkkuwaay quartier boo am maison de la fem maison de la jeunesse centre loolu tey ab genre technopole la wala zone industrielle ñun quartier la ñuy tabax li tax quartier c'est parce que dañ faa bëgg def centre commercial buy jar six milliards cinq cent millions huit étages amul escalier escalator ngay yéegee da ngay teg sa loxo mu yéegale ci kaw premier deuxième troisième amul huitième sax boo bëggee légume am ko boo bëggee yàpp am ko boo bëggee jën am ko boo bëggee dàll am ko boo bëggee tissu am ko boo bëggee télévision am ko boo bëggee produit de beauté am ko boo bëggee agence de voyage am ko boo bëggee cabinet d'avocat am ko boo bëggee cabinet dentaire am ko lu nit di soxla ji daan dugg oto di ci romb EDK di jël péage bi di dem dakaar projet bi su paree loolu laay dakkal Pikine reste à Pikine waa dakaar ñooy ñëw di jàggaat si Pikine huit étages six milliards cinq cent millions day am ay bureau am ay restaurant comme yi am Dakar xale yi Pikine fii di jóg di jël oto couple yi di jóg fii di lakk essence di jël oto di dem Dakar léegi moo fi jeex projet bi si sottee da ngay jóg doxantu ànd ak sa ki nga aimé ngeen dem ci sa def seen restaurant dem bi ah Pikine Nord day am salle de fitness mag nga nga bëgg a defar sa yaram jarul ngay dem di yi feneen ñëwal fii ci Pikine Nord ci centre commercial bi nga am ko fa wax naa maison de la femme wax naa centre commercial wax naa handicapé yi mais artisan Pikine Nord yi demal ci mbedd yi da gis menuisier bi fii mu lal ay baraak menuisier métallique bi nga dem fa la gis mécanicien yi carcasse oto yi loolu yëpp dañ ko bëgg génne Pikine Nord yóbbu leen foofu wutal leen benn centre bi nga xamante ne day nekk une maison de l'outil ñu daje fa boole seen doole di am ay marché di am di di ko gagner même dans la sous-région mais ñu organiser leen en en mutualisation de leur moyen et de leur force pour que ñu mun a am une petite et moyenne entreprise loolu vision la mais mu am zawiya parce que ñu dëkk foofu bu boobaa dañuy bëgg julli mais boo defee jullikaay jàkka def euh, def euh, daara Euh, alxuraan tegaale ci wet gi espace bi mën na ko bañ a doy ñu xalaat ne dañ koy boole mu nekk benn institut de recherche islamique mu tudd Zawiya xam day am jullikaay am jullikaayu juma jullikaayu yeneen waxtu yi am jullikaayu àjjuma ci biir am daara moderne ci biir am bibliothèque de recherche islamique soo bëggee waxtaan ci Cheikh Ibra nga dem seeti ko foofu soo bëggee waxtaan ci maam maam Cheikh Amadou Bamba nga dem fa soo bëggee ci Maba Jaxu Ja boo demee fekk ko fa soo bëggee ci El Hadj Omar Foutiyou Tall moo ngi tudd Zawiya El Hadj Omar Foutiyou Tall parce que këru diine bu fi tëgg rek ci Pikine wala ci Sénégal këru diine boo gis rek El Hadj Omar moo joxoñ njiit la moom la yàlla may muy wëlliw bu mag bu toll nii tarixa yi ci Sénégal yëpp dañuy wuyoo ci moom ñu tuddee ko pour ñëpp gis seen bopp Zawiya El Hadj Omar Foutiou Tall bañ ci waxtaan ak Thierno Madani Tall dafa ne yéen a ngi may indi la décentralisation de la Zawiya de Dakar waa banlieue di ñëw di yem foofu mais naka la un maire ñu fal la ngay am sa salaire am say bureau am sa climatiseur am yëpp doo xalaatal askan bi yu mel nii léegi naka ngay nekkee conseil municipal dëkk ci bi nga naan maire non da ngaa luubal parce que xëy na bëgg nga ci parcelles yi amoo ci waaw promoteur bi lay tabaxal six milliards cinq cent millions promoteur bi tabaxal promoteur boobu moo lay tabaxal maison de la femme say jigéen dugg ci mooy tabaxal maison des handicapés maison des artisans mooy tabax manège xam ngeen manège mooy xale yi comme Magic Land fi ñuy fawee léegi doomu Pikine ku ci bëgg a bégal sa doom da ngay lakk essence aller retour dix mille wala quinze mille dugg manège Magic Land bi nekk fële boru teeru bi nga fay ticket après ñu dëpp lu mu bon bon vingt cinq mille wala trente mille di nga ko dépensé waaw bu dee Pikine lañ ko am bii Pikine Nord waa Géejawaay Kër Massar Malika Ginnaaw Raay Waliyaan si Pikine Nord di indi seen doom yi ñu fi xàppi di bëggee xaalis bi di dugg reset bi di dugg commune bi di amaat beneen budget mais xanaa loolu vision la la ngay am foofu di ko am ci centre commercial bi day nekk minimum par at 300 millions xam nga lan laa ci jubbu pavé Pikine noor mbedd Pikine Nord yi nga génn sa kër dem dugg ci oto ba génn dugg si waat sa kër wàcc ci oto di dugg ba génn doo gis suuf doo soxla cirage daal parce que zéro sable la ñuy def loolu mooy projet bi ñu léegi nag mu des benn école élémentaire bi ñuy def foofu parce que dama gis ne quartier boobu dafa jege arène bi soo fa defee ay école élémentaire boobu amul école élémentaire xale yi bu ñuy jàngi dañuy dem école 7 wala école 1 kon dinañ jéggi tali bu mag benn jéggi jéggi rue ñaari jéggi doog a dem bu ñuy wàcc dañuy jéggi tali bu mag jéggi rue muy ñeenti yoon la ñuy jéggi ci bés bi yaay ju sa doom amagul atu CM2 xale bi di demee noonu mais doo sa xel du dal ba ba muy jëw sa biir kër loo dégg mu ne xiij nga ne fël nañ xale bi pour bañ loolu yëpp di am ñu ne ci biir quartier boobu nañ fa def école élémentaire ba ñoom ba ñuy nekk xale sem si sem si sey ba ba ñuy def CM2 duñ ji jéggi tali ci biir jox ba lañ jàng bu ñu demee ba am CM2 ba am entrée boobu xam nañ xool gauche xool droite doog a jéggi boobaa nag ñu mun a wuti beneen école feneen lii laay sama vision ci commune Pikine Nord et vision boobu yëpp day englober le désengorgement de tali bu mag parce que tali bu mag li ñëpp di jooy ma leen ko jooyle mooy xat waaye man duma ci maire bokkuma ci maire yi nga xamante ne ñooy fekk jigéen ñi daan seen doole xale góor yi di ambulant sàcc wuñ fenuñu jaayuñ seen bopp demuñu Barça gëm seen réew di liggéey te taabal nga dàq leen te amoo foo leen dugal. ñaata cin ngay cëpp ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay dëpp alors je dis nañu li li jin euh, béy muñ ba am sikkim mën na ko muñ ba xëy dee kabiru ma jaar na fi dindiwu ko biram nekk njaay jaar na fi dindiwu ko Alioune Samb jaar na ko dindiwu ko Daawur Njaay jaar na ko jaar na fi dindiwu ko Demba Seck avant moom jaar na fi dindiwu ko Pape Sagna Mbaye jaar na ko avant moom dindiwu ko Ablaye Timbo jaar na fi dindi ko Amadou Diarra am projet pour dindi ko ñu ne duñ ko muñal te ma doon na ko fi waaye mënu ma leen yëkkati sànni di xoolal Kër Massar ñoo ngi saaga premier ministre ñoo ngi saaga président bu bees bi parce que ñoo ngi leen dindi te wutuñu leen demal golf Khadija Mayakor ñoo ngi saaga premier ministre Ousmane Sonko di saaga Diomaye te ñoom defuñu dara maire ba la moo leen dindi te amul fu mu leen dëgal man ma ne leen buñ ma laajoon ñëw. ak expérience bi am dinañ wax askan bi muñ leen tuuti ma tabaxal leen bu ko defee bu ma leen jëlee fii yóbbu leen fee waaye ñëw rek këpp ci ni dem leen nii rek amoo léegi nag léegi nag am naa sama ñeenti conseil xaw ma juróom-ñaar ci 66 yu ne ànd ñu ci projet yi ñoom nag ñoo fi créé ànd sàmm sunu moomeel nee nañ projet bi du fi am nee nañ kër yi dañoo bëgg xam ku ci am ku ci amul waa léegi promoteur bi tabax loolu yëpp lan lañ koy fayee xaalis wala suuf mais mais amoo xaalis bi 6 milliards bi Nord budget annuel la motul 6 milliards boo bëggee tabax benn centre commercial 6 milliards cinq di nga fi nekk mandat ba sa mandat jeex ba élection bi ci topp ngay fay 6 milliards te du jeex waaw kooku te boo amee pàkk boobu maa ko lijjanti man nii ay ñax la woon ay jàng maa ko lijjanti ba président jox ñu ko Macky Sall bokk ñu tax ba ma ànd moom jóge ci PDS ma ne ko laajuma la oto laajuma la essence laajuma la poste ministre li ma la laaj mooy projet bi jox ñu ko parce que mooy naataange Pikine Nord mu ne ma dinaa la ko jox. waaw affaire yi jóg a génn ay nit ñi am faluñu leen seen yoon nekkul ci développement gox bi man lañ jiital ma war a développer gox bi ñu ne ma nag projet bi kat commencé nañ ko sëkk waaye ko ko sëkk duñ ko fay dara mooy indi tali bi mooy def assainissement bi 470 millions mooy tabax bâtiment yi ma leen limal yëpp waaye buñ ko fay suuf. waaye bu ñu ko fayee suuf it bu mu ko def ay kër jaay ko pour génne ci xaalisam am na conseil yu wax ne waa maire loolu yëpp baax na waaye man bëgg naa ci de keneen ne ma bëgg naa ci de waaye léegi quatre-vingt-dix-huit parcelles boo jëlee soixante-six conseillers jox leen xanaa askan bi dañuy jël yet fekkuñu fi yéen ñu fan lan ngeen di séddoo suuf ma ne nañ ko bàyyee ak promoteur bi muy luñ koy fay te dina des sax lu ñu koy ameel ñu war ko jëlee ci centre commercial bi ca la ñu commencé si ak moom convention naan ko def nga fi lii lii ak lii lañ lay fayee ñu bind ko ci convention yi doo koy indi conseil municipal loolu jotagul kayit yëpp génnagul ñu bëgg amee Pikine Nord di wax de bradage am ay journalistes am te ne jànguñu xamuñu éthique li ñuy wax mooy am na ku yuuxu rek c'est vrai wala nee la maire dafa bradé nga bind titre maire bradé na te yow laajoo maire gis nga laaj ngeen ma lii ma leen wax ana bradage bi promoteur bi su ñu ñëwee yow mu may la benn lu ci lu ci yoonu kenn yow bu la jaayee benn lu ci yoonu kenn parce que moom ci gëlu guyam la te foofu si ñu ne foofu zone ndox la mais zone ndox la woon mais wanni na bañ fa defee arène nationale bi wanni na bañ fa jëlee 5000 mètres carrés pour maison de la jeunesse et de la citoyenneté léegi zone ndox ndox muy zone non aedificandi yi ñoo ngi koy réservé à la zone de Niayes mooy boo jégee tali arine bi foofu dañ fa def zone réservée jox ko borom tenue yooyu ngeen di gis mu ñuy def eaux et forêt ñoo koy su garder waaye li jëm nii ci dëkkuwaay la ndax quartier bi dëkk nañ ko ba pare pokkus boobu rek moo fa des moom lañ jël mu tóoj et fi may jeexalee mooy waxi engar mer ne na dafay tabax engar directeur de cabinet barki alxuraanu karim ay kàcc la musuma wax ni tabaxal ma fa engar billaahi wallahi walkitaabi musuma fa wax di tabaxal ma hangar entrepreneur bu may waxaale pour fay ko sax amu fa xarit ku baax laa am may set seetal ci quartier ba ci waa waajal nawet waa quartier ba ñu may maire defal ñu fi benn égu ndax suñu kër yi day guus di ball ma may ko mu def loolu mu ne ma maire noppil dinaa leen ko defal mu commencé defal ñu ne maire day tabax hangar ma ne ko foo la ko déggee ñu ne sa directeur ancien directeur de cabinet moo ko wax Makoura Mboup moo woo Makoura ma ne ko maa la wax da def hangar mu ne non man dama leen doon wax mais daa ñàkk fayda su ma doon moom damay tabax marché zinc nit du ci mën dara jël nit ñi tabax fi ay hangar yëkkati ko ba ci kaw dugal leen fa loolu tax ma wax leen waxi hangar ñu enregistré ko di dem di wax waaye man mosuma leen wax yaa ma def ma ne ko yow un jëluma la yow sama xarit moo ñëw xam ne yow raqu kii wewe sugu mi raqam moi moo ma indil kooku sama xarit boobu ma xamante ak moom mu xam ne Macoura retraité na mënatul liggéey ci mairie te jàppale na ma ba ma gagné mu ne ko comme ingénieur nga kaay liggéey xaritu maire lii mu bëgg a ci quartier ba nga dirige loolu tax Macoura moom it pour comme politicien la man lay jàppale xale yi mu jël mu wutal leen tenue Pikine Nord pour ku fa romb gërëm jara léegi ñu ne Amadou jaraa moo ko sant mu tabax hangar ma leen di wax ne fii ba àdduna du jukki tant que maa ngi nekk moo maire doo leen fa gis hangar parce que lu may doy hangar man doxuma ci hangar benn kër laay wut ci àdduna benn kër benn kër laay wut ci àdduna benn adduna bi yëpp benn laa ciy wut benn kër samay doom xam nañ fi ma dëkk dama faa luwe nekk naa maire nekk naa député maire nekk naa chargé de mission à la présidence de la république nekk naa chargé de mission du ministre de la santé nekk naa chef de cabinet du ministre de l'éducation nationale tey nekk naa maire nekk président conseil d'administration du fonds de solidarité nationale ba tey fi ma dëkkoon maa ngi fay luwe nga yaakaar ne mënuma lijjanti kër parce que maa wutul dëkkuwaay boobu kër gu mujj bi laa bëgg nañ ma ko daggal fële ci Pikine 7 mètres li mu fees fees nañ ma ko subaare na yéex waaye foofu laa bëgg yii may def pour mu fekk ma foofu rek te bëgg yàggatul yàggatul yonent bi salaa alayhi dafa fekk benn màggat ci désert bi mu ne saabaam yi wàcc leen dem leen demal ko mbaar désert bii ndox amu fi naaj baa ngi nii suuf si tàng mais màggat bi dem toog fële ak ay bagaasam dem leen ngeen wutal ko mbaar saaba yu jóg di di mbaar taf-taf ñu indi samp bant defal ko ba mu pare mel bi jóg rek buddi sànni loolu di def ni ñu ne yonent bi moo ñu ko sant mu ne ko yow looy santaane mu ne ko naaj bee tàng kat ma gis ne fii nar nga fee yàgg te dafa tàng mu ne ko nan laa fi yàggee mu ne ko yàlla woon na ma sama boroom ne di nga dundaat téeméeri at soxna si ne ko téeméeri at daa yàgg nga may mbaaral mu ne ko téeméeri at yàggul nga may mbaaral bàyyi ma nii ah ñun ku fi dundati téeméer ah, pare ñuy daw ci ay suuf man xam nga lan laay daw ban way laa fi bàyyi Pikine Nord ñu ma fal falaat ma falaat ma may toog ci biro di fayeku salaire di am tur ñu may teetu fu ne naan ma monsieur le maire may xoogaliku te ba may ba ma fiy jóge duma fi bàyyi dara moo tax projet bii bii laa ci teg